doon joxe exemple rek di tudd malakul mawti naan ko xoolal ñi nga war a jël ak euh, del jël nii ci misaal ma doon wax naan malakul mawti waroo jël bëgg bamba wala waroo jël El Hadj danga war a jël ku bon bàyyi fi ñii loolu lan la ci diine am comme xalaat waaye tamit kàddu yooyu kuy def musique yëkkati ko yow en tant que koo xam ne tamit daanaka da ngay gëstu doxalinu société beeg tolluwaayam ak diine naka nga jàngee kàddu yooyu nga xam ne ay ndaw yu ci mbiru rab def musique ñoom ñoo ko <laughs> nga euh, Sénégal dañoo naq naqadi deret laaj ma lu tax duñ xool lu rafet lu ñu ñaawlu rek la ñuy xool waxuma lu ñaaw di lu ñu ñaawlu su dee nag son bi ñuy jël bëri na koy kaas musique te yaa dàq déglu musique ñëpp gars yi noonu la nu mel man musique daganalu ma ko sama yoon nekku ci musique duma ko daganal jamais xaajuma koo daganal jamais waaye nag wax bu léegi-léegi Aboubacar Sadiq waxoon na yonent bi ne ko man ma faatu yow nga dund moo gën su ma sañoon doo dee su malakul mawti ñëwee ne ma jël te bala fi yooyu jib day jib xëy na nag boo na koy waxee ak ca fa koy waxee nit ñi ñuy bëgg ay coow naan wuy warta tudd lii warta tudd laa waa ki wax fii ci réew mii ne ko yaay yonent bi xamuñu yaay yonent bi xamuñu bàyyi yonent bi ba pare ne koy yaayam koy baayam tegte ne yaayam gënu sama yaay baayam gënu sama baay lijjanti leen aali kalla ji doog a wax ci gone yi ah waaye congaan ku toll ne rasulilaay kenn xamul lu xew kenn la ngay wax jotewul loolu dara nga tudd nit tudd ndeyam seetal xamuñu yaay yonent bi xamuñu maa ko déglu xamuñu bàyyi yonent bi ba pare teg ci question ne kuy ndeyam kuy baayam maa ko tontu ne ko kii mooy ndeyam kii mooy baayam wax joojoo ngi fi gaa yi ŋaanguñu de ña bëgg a ŋaang ŋaang nañu ña dëggu ŋaang nañu waaye ba léegi kilifa yu bari ŋaanguñu ci dañuy ne patt patti rek am ñu koy fat nag ba pare boole ko ci seen groupe dox leen ñu dem man ànduma kenn ci tappale lii rek nii rek waaw donc bu lii garaawee lee garaaw lii mujj ñëw lee jiitu nañ wax ci bi jiitu wax ci ki ci topp am déet musique faraluma ko man duma ànd ci yooyu caaxaan kenn mënuma cee boole waaye su ma sañoon mëlëkul mawti du rey congaan ku sañ nga ko di su ma sañoon Amadou du fi jóge ku sañ na ko nit dee na ba taay ñëpp yuuxu ñëw ci kër gi wallaay alaaji wartoon a dem yàlla kay bu mu jëloon ma sax ba fi alaaji moo gën ma malakul mawtu waru koon a yóbbu mais loolu yàgg nañ koo wax saawun ba nag jamaa fou <laughs> waaye weddiwuma lool man ay sound moom intéressé wu ma dama la wax ni yàgg nga ko dégg congaan xam nga di gis lu rafet ci nit dafa baax waaye boo xëyee ni ci site internet yi lu Iran wax nga commentaire tontu ko mais loolu taxul boroom xam-xam di fi ne boroom xam-xam boo déggee lu jaaduwul da ngay fexe gis ña ko wax nga waxtaan ak ñoom. ne leen bu leen waxati lii bu leen defati lii ndax bokkul ci orma malaaka yi bokkul ci orma sunu borom mais nañ ko waxtaanee man li may bañ jël nit toroxal ko nañ ko waxtaanee waaye congaan nu yéen a ngi nii daje ñëw ci man ah voilà su dara xewee ñëw leen ci man yéenaa lu tax nga wax nangam yéenaa lu tax nga def nangam man leeral ngeen teg mais dañuy xool ci site internet yi rek yéenaa wax na nangam aca commentaire yi commencé yow nga bëgg sa sit am vie nga jël ko dugal ko de ba pare di ti ci sama vie privée sa vie privée ndey ne fi ti xam nga sa ndey di dundee waxoo ca sa vie privée bàyyi ne fi waxoo sa bàyyi li fi nekkee waxoo ko ti da ngay laaj mag ñi bokk ak sa baay jamono laaj jigéen ñi bokk ak sa ndey jamono ndax sa baay juboon na wala sa ndey juboon na bala ngaa wax. bari na koy wax ci moom lam xam ci sa ndey xamoo ko. dëgg la ah voilà lam xam ca sa ndey xamoo ko Ousmane Gueye la tudd moo nekk meeru sali dama leen defal conférence dama fa dem conférence congaan war fa jógee dem gàmmu Fatick te maa ngi def conférence lycée bu sëñ Babacar jógee fa dem defal leen conférence sali dem Thiès ci daayira maam jaara buso jógee fa dem sali guddi laa yegg war fa jógee dem Fatick ma wax ba pare jóg di dem mu ne ma may ma bala ngaa dem mooy meeru sali Ousmane Gueye la tudd sama wóllëre la ma ne ko Ousmane dama yàkkamti te guddi na maa ngi ànd ak Pape Malick Mbaye bi ngeen di tuddee caat di doomu Pape Mbaye donde keroog ñoo ànd keroog la ne ma dootuma ànd ak yow nit ko dul lekk du ma ànd ak moom kenn ku ne benn nen laa la jox mooy sa rek ak sa añ wallaay laaj ko Pape Malick Bay keroog la ne ma banaa la yow koo rey ngay wër. ñi ànd ak yow dootul am am. boo ko xoolee xam ne lekk ku toog la. moog caam dem de ah. dañoo gaaw ci xiif naa. ma dem. Uh-huh. jóg taxaw mu ne ma waa taxawal may ma. ma ne tekk mu ne ma Iran. Uh-huh. seede bii ma waa sali seede ne damay séddale ci togg yeeg damay takk sama ndigg ak xam nga lu tax ma mel noonu ci mairie ñoo xam sama yaay te xaw ma lañ ci xam rafet naam rafetul su ma yaroo dana ma ump dëgg la mu ne ma paa yi toog ñoo xam sama baay ñoo dund ak moom su yaroo dana ma xaw ma lu sama papa rafet la fi def xaw ma lu ñaaw moo tax ma yaroo boo bëggee dem Fatick nag man ngaa dem wax dàq ko bari na koy wax boo consulter sa yaay laaj sa baay boo demee sax yow doo doomu yoon parce que nit ñi mel noonu mas naa ko benn kilifa man ne ko kii lu tax mu yaree de ko xanaa jubul mu ne ma ku la xam ku la xamal ne du doomu yoon ma ni ko dafa yaree de ko mu ne ma yaayam bi muy tënji lañ ko biiral moom mooy kii. waaye xanaa jàngoo wali dum nu xiir jàngu leen ko wala tutee kulla xallaafin mahiinin hammaasin mashaayin bi namimi mannaain lil xayri mu'tadin asimin utulin baada zalika zaniim te xam nga lu tax mu mel noonu an kaana daa maalin wa baniin yàlla alal day beewloo nit moo doon financé xaalis si yëpp lay financé ne saaga leen Muhammad génne xale yi ci diine ji di fay site internet yi ne leen fexe leen ba ngeen déstabiliser yonent bi yàlla woo yonent bi ne ko bu ma fonto wastaqim kama umirt nekkal ci li ma sant di nga ba ak moom ak dégg moo ko jam mu ne rus na koo sekk dégg di jam ba moo ko tataanos rey ko bantu fitte ko rey te lu ne def na ko yàlla ne ko kaay ma déy la loo xamul mu sëgg mu ne ko baa xam nga ne doomi njaalo la mu ne yo mu ni ko baada dalika zaniim doomi njaalo la yenent bi nettali ko saaba yi ay bu wàcc da koy wax Seydina Omar dem ci Kaaba ga Omar mu Xataab bi fekk ponkal yéeféer yaa ngi toog wër Kaaba gi di dam yeeg yootee bëlool rek mu ñëw ba dend ak Abu eh, eh, nu mu tudd Walid ibn Mughira allahu akbar day naafile di jàng faatee ba mu jeex mu jàng wala tutee ku la xalaaf ba ci baada dalika zanim mu ne walidum lu mu xiira allahu akbar walidum lu mu xiira nekkul ci laaya ji waaye day tooñ day dafay créer problème mu sigi gars yi xàqtaay ni ko yow walid nekkee doomu njaala mu ne tudd ma de laalu mu jàngaat ba yegg ci baada zalika zanim mu ne walid mii laa wax daal di ko pénc mi yëpp xam ne nekk wëli doomu njaalo la yaree de koo tax mu feeñ mu daw moom wëlit ci yenent bi ne ko lu tax ngay sa yàlla ji ne doomu njaalo la di ko joxoñ Omar dama loxo baaraam ne ko kii kenn du ko joxoñ moo tax njaboot day aar kilifaam man muriid yi ni ñu mel neex na ma lool boo tuddee sëñ Tuubaa ci seen seen bés gii ay kóora la koy tontu rajaax muriid neex nañ ma lool ñoom dañoo aar seen kilifa bàyyi faali noonu ay ne fii naan dinaa ko jàngal dog ban est-ce que doo co dog sëriñ Babacar Sy Cheikh Al Hadj Malick da ko noonu ñi may saaga ñëpp mënoo xeex ak ñoom sëñ doo ñu ko nettiti booba mbooloo ngi toog fenuma ko mënoo xeex ak ñoom ku ma saagaati jàngal ma fàllaxeeg naa si yii nii ma ko ti bàyyi ko mu ne ko dinaa jàng li nga wax waaye dinaa ci boole kii il faut mu mbëkk ko seetaan baaxul mu fàq loxo ba ni ko yonent bi kenn du ko joxoñ waxal li nga mu ni ko kii daa ñëw ne ma doomu njaalo la Omar ne ko lu leer nga bëgg mu ni ko ah mu ni ko demal laaj ko sa ndey